Félicitations. Oui, pour merci. Hein. ginnaaw bañ sante yàlla julli ci yeneen bi di gërëm sumay ñaari waajur di nuyu suma sëriñ si Ablaye Diop borom xaas di ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi mu yàgg fi loolu te wér di nuyu waa Malika bi yëmbal benn baraak Kër Masara ah, waa Dëbbun waa Mbëbës waa Kër Masar cité Pilitance di bëggee ñëpp di nuyu sama ami yu nekk si diaspora bi ak képp kuy bëggee général bu Malika maa ngi lay bëggee di la jox sa wàcc ñu def le meilleur lutteur de l'année waa association nationale de la presse sportive ci li nga xamante ne que moom mooy wàllu euh, lutte simple waaw mais lii di xëy na bañ duggee ci làmb ji yàgg na yàggul quoi da vraiment am na ñuñ ci jiitu am na ñuñ ci fekk tamit xam nga kon bu yàlla dogalee làmb ji ni mu toll ñu nomee ñu meilleur lutteur lutte sans frappe loolu yokkute la di ci am contentement ndax yombul quoi vraiment ñu ngi ciy kontaan bu baax a baax a baax a baax. Euh, tey prix bi tey kan nga koy déjee maanaam wala ko koy delloo ñu ko. waa lii di ko delloo waa Malika bi yëpp di ko delloo suma yaay ndax vraiment man dama bugg suma yaay. te yàlla def na ni sama yaay dafa dafay nekkul te bu ma soñoon bépp teraanga bi may am lépp lu baax lu may am suma yaay da koy teewe ndam lii yëpp maa ngi koy jël di ko delloowaat sama yaay di ko jëloowaat nag waa Malika ndax man awma lu dul Malika doomu Malika laa yëmbal benn baraak Kër Massar àll ba ñaax ak buun. tey kon tey jii saa na la tey sentir nga sentir nga wéetaay tey. sentir naa wéetaay bu doy waar ko vraiment suma xol dafa tooy ndax suma yaay dafa sori woon suma xol. te moment bi may commencé di débuter làmb daf ma daan xool doon ma am ay mbër yu ñu ma doon duróowaale nan ma ñii laa lay xoolee moment boobu gumul xamul woon ni sax ndax man dina dem bay bëri arène wala di dem bay toll fii nii ci làmb kon man dama doon neex lépp lu ma am ci làmb su may waajur fekkee ko mais comme que fekku leen fi nag maa ngi leen maa ngi koy sant yàlla di xam ne lii amaana lu gën la ndax lu gën rek la suñu borom di def di ko ñaanal suma yaay fi mu tëdd yàlla na suuf si kawam yàlla na xippee àjjana